waaw salaamaaleykum Sénégal ñoo ngi nuyu ñëpp di bëggee ñëpp mais tey dañu yow gis le gouverneur de Dakar wax ni euh, artistes yi ba léegi nii salle spectacle yi dañ koy continuer di teg xam nga nit ñi dëgg dëgg neex yàlla toog nañ pendant six ba sept mois yoo xam ne liggéeyuñu te artistes yi ay boroom kër lañ gor nag bu mënul yelwaan mënul xaaraan mënul ñaan da koy bàyyi mu def liggéeyam donc le gouverneur de Dakar ñu ngi lay ñaan. dëgg na neex yàlla ku mën a ubbi auberge ak ay hôtel mën a ubbi discothèque yi quoi donc nag monsieur le gouverneur ñoo lay ñaan nga ubbil ñu boîte de nuit gars yi dem jouer yi faj seen soxla gars yi mënuñu yalwaan mënuñu ñaan mënuñu xaaraat wasalaam merci président nag bu ko déggee ñoo lay ñaanal nga jàppale ñu ci loolu jërëjëf